yéen téléspectateurs yi nga xamee ni ku ci am euh, anniversaire moo xam sa mbokk sa xarit wala koo bëgg euh, nga yónnee ñu ko ñu jàllale ko c'est gratuit et c'est pour vous euh, donc dañu koy njëkkee ak suñu suma benn jigéen jigéenu ibu Diop njaay la tey la anniversaire am moom nag c'est la grande royale mais la grande ngoroise Bintou Wade alors Bintou Wade la plus belle la plus gentille la reine du 12 septembre noonu la ko mag ji tuddee donc moom ñu ngi koy ñaanal gudd fan euh, ak wér euh, di ko souhaiter un bon anniversaire c'est de la part de euh, xaritam càmminam nekk ca dëkk bu ñu naan France di suma magu bopp Ibou Diop Ndiaye donc moom Bintu wadd neex a fekk ngor ñu ngi koy souhaiter en bon anniversaire mook dëkkam ñoo bokk ay turam turu dëkk bi moom noonu la mel voilà ngor <laughs> donc dafa dafa dese ngor moom Bintu Wade ñu ngi koy souhaiter un bon anniversaire. Elle, c'est la reine du 12 septembre. Et puis, joyeux anniversaire à Kumbawandia. Kumba Wan Dia moom itam tay la bésam euh, ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér euh, chéri Pape Dia euh, c'est de la part de sa maman Mariem Yad ainsi que toute sa famille donc Kumba Kumba Wan Kumba Wan Dia chéri Papa Dia ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér on te souhaite beaucoup de bonheur donc c'est de la part de toute la famille nekk Wakam c'est de la part de Mariem Yad nekk fii ci Wakam ak famille bi yëpp ñun ñëpp ñu ngi lay bégee Euh, di la ñaanal euh, gudd fan ak wér on te souhaite donc un bon euh, anniversaire joyeux anniversaire aussi à Abdourahmane Koulibaly Abdourahmane Koulibaly c'est de la part de sa mère Tati Faye ak papam ak toute la famille Faye nekk Thiès Diakhaw moom c'est mon petit cousin suma umpaañe yaayam di Tati Faye donc joyeux anniversaire à Abdourahmane Koulibaly mm-hmm. Euh, ñu ngi koy euh, ñaanal ak euh, toute la famille nekk foofu ca Jaxaaw turandoom Abdourahmane Diallo ak toute la famille ñu ngi koy béggee bu baax y a une photo qu'on n'a pas reçue muy bàjjanu xale bi di anniversaire Adja Diallo lu tudd donc Tata Adja on te souhaite un bon anniversaire joyeux anniversaire voilà c'est la photo la photo elle est là Adja de la part de toute la famille Diallo nekk Thiès ñu ngi koy souhaiter un bon anniversaire. On lui souhaite euh, beaucoup de euh, bonheur. Happy birthday de la part aussi de euh, Ndiabotou Adja Kine Diouf Yatma yëpp. Joyeux anniversaire à Ndaye Cissé. Ndeye Cissé tamit euh, ñu ngi koy souhaiter euh, happy euh, birthday c'est de la part joyeux anniversaire à ma petite sœur Marianne Dia c'est de la part de Fari Sambiof Dundal Dieng Sala on t'aime très fort kii Daba Diouf la moom ñu ngi koy souhaiter un bon anniversaire c'est de la part de njabootu Adja Wuli Yaxya yëpp ak njabootu maître Dior Diagne donc Daba Diouf joyeux anniversaire joyeux anniversaire à Koumba conseil euh, Sadji euh, bu Afia euh, de la part de sa maman Binta Kanouté. Happy birthday à Ousmane Dia, euh, mon ami, mon frère, mon confident, chérie Fina, euh, Bayou euh, Rassoul. Moi, je pense que li ci des continuer di ko jàllale ñu def tour de table puisqu'il est 11 h Eva Tra ngi xaar pour Wareef et que man maa ngi leen di a gunge léegi nii ci rajo bi donc tu mets toutes les toutes photos comme ça ñi anniversaire gis ci seen bopp. sama day am na baas booba joxul benn sama gën a dajale panel panel fépp lay toog da da tuut ba da may tolloon yeah yeah c'est ton jour happy birthday it's your day Amina yàlla la ko may c'est ton jour jour si spécial, je souhaite te régaler de bonheur. Le menu que je t'offre se compose d'une touche de folie, d'un assaisonnement de gaieté, d'un soupçon d'émotion et d'un dessert d'amour. Ça vaut bien ton plus beau jour de l'année, avec tous mes souhaits de longévité. Je suis de tout cœur avec toi. Joyeux anniversaire, Habibitem. turn up, turn up. Summer day, I'm the boss. 고마워, 그대로 흘러가던 그들이. 바라, 바라. Feel like all of the